barkeb borom Tuuba barke Seex Bamba ma fad way furuxatul xawmi mahan ay bésu Seex Bamba bi xëy fay bépp ay mbégteem mi ñëw na barke Seex Bamba ma fad way furxatul qawmin mahal ay bisu Seex Bamba bi xëy fay bépp ay mbégteem mi ñëw na axbalal yawmu ilayna bépp xel tey fim ne dal na sunu xol sedd na tooy na ngir safar mbégte mi ñëw na safara weer wi ñu leeral màggalal bis bi ñu muccal sunu kër moonu ko sempil ca jaxim tey sant war naam jege weer wi makañ la tudd say jaagle lu war la yaakaram weer ñëppalaw la yow sotteendiri mekte sawna yaa di weer tiitër yaa bis bi sunu mbukkër yaa ñu daqal sunu tartar lu fi doono cuunu wayna lu fi baax yaa ñu ko andil lu fi bon yaa ñu ko daqal lu fi yaa ñu ko follil ku la màggal xel ma rey naan anta dam sun di sumuusi kuudi wa man jandil aalamiina نفس ومجن العالمين كل خير فيك بالا سجن كون بتانا في سفر يا أميمانا كلما قل خلم متنا ci safar yaa bari ay may ci safar yaa bari ak pay ku la màggal ay mayam rëy ku la màggal cër bërëy naay yaa ñu sempin gittinaari tax ba ñun kenn du fa say ngeneel gétti ña ca teera buur ba wér yaa ñu sempil gittinaari taqbañul kenn du fajaari say nga neel géeti nazaari ñette téere yi buur bëwér naan yaa ñu fóotal sunu taas taas yaa ñu tabbal ci sa bit amuluk feek fanu jàmmaas ku la màggal may yëgóor la yaanu rangal daraja yi góor yaanu muccal ci ku ñuy dóor ci sa duus yi lanu far noor ngir sa géej gi duus yi rey zukku nan zaabe di zikkar mbindi sëñ be yi ngeen gi zikkar di la waajal ngeen gi tiitar sippi ngay bët fim ne tooy naa kulla man am babika dirhaman kaana wa bukka may zaybul zik zaata zamanan tam nadataana kulla man من قبل فكاك مويدا يبول ذكي ذاكاك سيغن التون بطانا di ka doore ci ginaar jëm ci gilem ren di am ku mënul xool fanu teg ñam nga seral foofa sa coona li doore ci ginaar jëm ci gilem ren di am ku mënul xool fanu teg ñam nga teral foofa sa coona li ka dooree ci ginaar jëm ci gilem ren li ci loo am ku mënul xool fanu teg ñam nga teral foofa sa coona ak oras yeeg mango ak pom képp kuy gan lu ko am ak anaanaas ak bokkam ay kanet war gàcce naana ci sa bis lañuy lekk ba doyoon ci ñam ñu nekk après yeeg res yu nu lakk li ñu am xam ne ne rëy naa fu la nit gis na nga yaatu bul di mer bul mel ne saatu gal gu ñëw def ko seteetu kure bul mag gal gi sooy bul di mar del de kérétaan dalalal gan ñi di waxtaan bul di si waaji faxaaraan ngin ngeen yi bis bul di mar del de kérétaan dalalal gan ñi di waxtaan bul di si waaji faxaaraan ngin ngeen yi bis bul di mar bul mel ne saatu gan gu ñëw ko sa seetu bul mag gal gi la nit gis nanga yaatu bul di mel bul mel ne zaatu gan gu def ko sa wura bul màggat gi doy na nit gis na yaatu bul di mer bul mel ne zaatu gan gu def ko sa wura bul màggat gi doy na bul xatal kenn melokaanam bul di gàntal kenn ñaanam bul di jëw kenn ginnaawam wegg ni sëñ bi de war li ci bis bi munu maa lim la sarraan ci ngëreenam ndox rekk ci géejam munu ñoo xam li ne day li ci bis bi munu maa lim la sarraan ci ngëreenam ndox rekk ci géejam munu ñoo xam li ne doy ma taxaw fii te di sàkku gudd fan ñel kama jokku sëriñ alxaaji di sàkku li ne man Cheikh Ibra doy naa ki ko way moo di lamiinu juggi ñan yàlla mu xiinu mu fegel ñépp la xiinu barke maam Cheikh Ibra doy naa ki ko way moo di lamiinu juggi ñan yàlla mu xiinu mu fegel ñépp la xiinu barke maam Cheikh Ibra doy naa bismillahi rahmaani rahiim barkeb borom tuuba astaxfirullah wal aziim tuub naa la ma way la ma yàlla baal yam naa daam astaxfirullah wal aziim tuub naa lama way keneen lama yàlla baal yam naa ci daam su ma dee ku doon af su set du ma way keneen ku la weesu ndax yawatee ma doon ku nu jàpp jaam su ma dee ku doon af gor du du ma way keneen ku la weesu ndax yawatee ma doon ku nu jàpp jaam way la man way la daam yawa mat way ku way keneen ku la moy tam def na la man yawa jare diwani yawa jare dikan yaa madin mala dab giwan man bamba fay nee naa yawa way yonen ba mu far la jox lu lam yoroon nga digal lu góor gu dootu ñaari bila malaam kele moo dikki kele moo dikkee wutante wuñ la fi kii bool kile moo ko fob tabbal ci beem kile moo di kii kile moo la fi kii bool moo ko fob tabbal ci beem kile moo fi bay toolam mu yor wuutal fi kii ba fi kii la ko naaf ku ñëw yan fukki mbaam kile moo fi gor giirum siraatal mustaqim kile moo fi ñëw yeesal ko tey ku mu neex ngaraam kile moo fi ñëw wudd sal nit ba mu mat mu dem kile moo fi ñëw tàggat ko tey mi ngi ñaa badaam kile moo fi ñëw gasteenu maan bam xadaw kilemoo ka xëy bënn tey ku ñëw mën rooti ndaam kilemoo fi taw waamew ngeneel sunna diw turam kile ñëw taxal ku nu yor lu woom di diri daraam kilemoo fi ñëw daat yéenu ñëpp dani diis mu jolli ba fi kii ñëw la ko yee dalaat muccu toog ne kile moo fi def zaqum te suuf ba mu ñëg mu dem kile moo kaddu yi ku ne yéeg mu tal yàq ay maanaam kile moo fi def zaqum te suuf ba mu ñëg mu dem kile moo kaddu yi ku ne bég mu tal yàq ay maanaam kile moo fi ñëw bu feeru ñoon suul ba dem kile mooy ki ñëw fi di seeni fiir nangu seeni jaam kile moo fi ñëw wub fiiri noon ñenu suul ba dem kile mooy ki ñëw fi di siini fiir nangu seeni jaam kile moo fi gar kile moo fi gor garabu buduro ba mu jibbi waat kile ñëw ne jaasul ne ren yanoon du nu jaf xaraam kile moo fi gar bu solo ba mu jébbiwaat kile ñoo ne jaatu yanoon du ne jaf xaraam kile moo fi ñëw foot pariyeer dañu diis mu niis kile moo fi ñëw bi xinaa yiw wiri ay daraam kile moo fi daa faje ak diir ña fi doon jarak kile moo fi ñëw di ndul yi tawat ku ne naa ko kile moo fi daa xare ak ña fi daa jabar kile ña fi daa jabar kile jabar ba nu yor karaam kile moo fi goru dakku xubbu ba mu kentale kile moo fi ñëw jagalaat ko tenu naa ko naam kile moo fi goru dakku xubbu ba mu kentale kile moo fi ñëw jagalaat ko woo te nu naa ko maam kile moo fi ñëw fetanal nu ni gum ak zakat kile zam bi jël wuti pir hidaa yi di ay tataan kile moo nu jox zaarul karim fanu ak koor kile mooy kitaab fa mu jalan ku ne naadiyaam kile mooy imaam muy mursaliin ku ne xam na koom kile mooy imaamul xaarifiin tañu naa ko daam kile mujtaba la noomin ci moom ñele mujtaba jëflante wuñ la fii kii boon moo ko foob tabbal ci baam kile moo di kii kile moo di kee wuutante wuñ la fii kii boon kile moo ko foob tabbal ci baam